mais saa ngi tudd Pape Alé Niang par rapport ak bi ñu ko tegee loxo euh, dernièrement aussi du moom rek parce que moom la tàmbalee xëy na mais ci diggante bi ñeneen dugg nañ kaso ku ci mel ne Pape Ndiaye bu Walfadjri Coro euh, jàppoon nañ ko après ñu bàyyi ko mu dellu même bu fekkee ne loolu ça n'a rien à voir ak liggéeyam ku ci mel ne Babacar Touré bu Kéwoulo euh, on a aussi convoqué directeur Walfadjri muy Moustapha Diop suba on nous dit que Serigne Saliou Gueye moom tamit euh, li liggéeyu journaliste au Sénégal jamono jii niñ toll nii nii nii euh, ban ban ban kii nga ci am ban regard noo ko noo ko noo gisee. Euh, defe naa ni yenn il manque un regard intelligent. ñenn ci yi. waaw parce que journaliste bu nekk bu nekk da ngay te da ngay fexe seet ci ban dëkk nga nekk <laughs> ci ban chef nga am. ban ministre de l' intérieur am ban ministre de la justice lan moo xew ci jamono yi nga nekk. pour lan mën a moytu li ngay wax wala déet. mën a seet li ngay wax noo koy waxee. loolu sax veut dire tënk nañ ñu kon. Ah non tënk attention waxuma ne tënk nañ la. noo la. non waxuma autocensure nga seet ni nga koy waxee dama ne. ah xam nga am nga ay information boo joxewul. du lépp la ñuy joxe. waaw daal nga ko sa métier. fekke nga dara yëg ko. dal na la léegi. léegi léegi bi ñuy commencé. bi ñuy commencé ba tey xamuloo effectivement li xew xew na am déet nga nga noppi. c'est vrai waaw ngoonte moon yow naka ngay nangoo loolu yow pour am une bonne information et pour wax loo xam ne dina génn a gaam te doo ko nangul ñu ci des mais bu fekkee ne da nga am un chef sanguinaire <laughs> un chef bu la mere di la tëkku te yow sa place yow en tant que juré nekkul ci kaso mais nga fexe ba doo fa dem ensuite ci bu fekkee ne da ngay wax ci nit. ci nit la ngay wax ca nit kooku mu wóor la bu la wóorul même bu la wóoree yenn saa sax nga wodd ko mais dama la wax ne que jël nit dara teg ko ci kaw nit te amul pourtant euh, jàng ngeen ko ci boroom xam-xam bu rëy a yàlla na ko yàlla xaare aljana Mame Less Camara mm-hmm. dafa wax ne boo bindee texte ba pare def ci nekk ñi jàpp démb mu def nangam ak nangam dugg fii nangam ak ndaw si ci xaalis bi nii njuga saaxo la maam les mu ne mu ne bul bind loolu boo ko bindee ba la ko publier mu ne dangay dindi turu njuga saaxo mhm. def ci sa turu papa hmm. bu jàllee rek publier bu jàllul dindil bu ko sa xel nangoo publier waaw bu ko nanguwul dindil waaw mais kooku bu ñu ko toppoon est dina am dina dina am Euh, plainte pour diffamation maanaam li ñuy wax waaw non damay laaj koy xoolaat est-ce que bu ñu ko toppoon bu ñu toppoon njàngale Mame Less Camara mhm. est-ce que journaliste dina dem tribunal ci diffamation lu bari dina dañ en tout cas du am mhm. nañ ko ñemee ku jëlul àllu jàmbur kenn du la jiñ sàcc ku lu ne kenn du leen a fenkat ku wax dëgg kenn du leen a fen nga war nañu xoolaat suñu bopp nga bëgg a wax ñun ñëpp tous tous dans ce pays ñun ñëpp dañu am ay responsabilités aujourd'hui de seetaat suñu bopp parce que pratiquement suñu réew dafa nekk à l'envers mhm. d'abord ñu meetuñu wax dëgg ñu meetuñu far boo faree ñu ne da nga contre diw mhm. c'est ce qu'on donc journalistes yi seen place du kaso moo tax journaliste bu waxee boo wax lu ko wóor ñu ne moom am na droit denc ay sources mhm. moo tax journaliste ñu ubbil ko yoon des na pour fu ñu mën a àgg ci information ñu àgg fa bu fekkoon ne ñun li ñu yor c'était transparent si nous étions transparents comme des vers bu boobaa journaliste dina am information bi di ko jox public bi ci jàmm